xeeñal yére yi bii xeeñal duus yi ak lépp loo xam ne dafa sëcc madaar madaar économique ñoo leen di may seen émission Kouthia Show eh rugi argaay rugi argaay rugi argaay argaay argaay argaay rugi si bopp nag moo ñu indil Gold Skin Gold Skin bii nga xam ne moom la rugi di diwo lee bi nan la def sa yaram hôpital li ma jaaxal damaa ñuuloon kuuk. am ay taas. mais depuis Gold Eastine ñëw ba léegi. waaw macha allah maa ngi sant yàlla bu baax. saabu bi lan nga wax jaay leen ma. jaay leen ma Gold Eastine. savon savon Gold Eastine bi. très bien. pare lay jox te gisoo sama yaram bi nu mu nooyee. loolu tax ma war macha allah. crème bi nga xam ne mooy crème Gold Eastine. boo ko diwoo guddi gi lan ngay yëg sa yaram. boo ko diwoo guddi bi boo yeewoo suba teel boo laalee sa yaram bi day nooy nepp. gel de douche bi lan ngay yëg bu fekkee ne sangoo nga ko. gel de douche bi moom dama koy teg ci salle de bain bi rek saa yu mu ñëwee mu utiliser ko. doo ko fàtte du ma ko fàtte mu. très bien est-ce que ñam nga escargot bi. ñam naa ko ñam naa ko. macha allah defee ci gàttal ñaata fan nga def commencé leer. semaine rek matin et soir nga koy utiliser. bës que ni tey bës ku ko rombati bul ko woowee Ruki nee ko Miss Gold is King Miss Gold is make Golden King. suñu mbégte ak contentement bu mag ànd ak yéen seen émission Kouthia Show si bopp moo ak Gold tamit euh, gold bi nga xam ne nag moom mooy Gold King version escargot ak version bi nga xam ne nag moom mooy argan bu jaune bi ak bu verte bi mbokk yi nag yomb naa jàpp Gold King argan mooy bu jaune bi Gold King escargot mooy verte bi madaar ti omo madaar ak cuuraay liquide omo madaar bi nga xam ne nag dafa ànd ak cuuraay bi baax na ci douche ak lu ës waaye tamit ci ay yëre jetol moo fi nekk nag di faj góom yi waaye di prévenir lépp loo xam ne nag ay picc la mbokk yi ñoom ñooy may seen émission Kouthia Show ki nekk ci réalisation bi xam ngeen ko tey di euh, l'homme de euh, euh, tonton mag feggoo ki nga xam ne mooy toog caméra yi ki ma jàkkaaroo kan la caméra yi ki nga la Abba mu ne ci caméra yi ñu am mbégte contentement ak <laughs> di ko nuyu di ko gërëm waaye tamit di <laughs> di sant tamit euh, bu baax ki nga xam ne mooy <laughs> mooy euh, cameraman bi donc mbokk yi ñuy gërëm bu baax sur l'égide et la bénédiction de tous les khalifes généraux Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd a wér gu waaye di delloo tamit suñu xel ci sëñ Sidi Makhtar di ko ñaanal ca àjjana yu gën a kawe yal na ko yàlla yokk leeram foofu waaye tamit ñuy am mbégte contentement ci sëñ Mbaye Sy Mansour xalif général de yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram suñu xel day dem suñu baay al amin moom tamit ca àjjana yu gën a kawe yal na yàlla yokk leeram foofu di gërëm tamit bu baax Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram Serigne Mame Bou Mouhamed général des xaadre yal na yàlla guddal fanam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalif bu Medina Baye yàlla may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram Serigne Cheikh Tidiane Seck xalif bu Thiénaba Thierno Bachirou taal xalif omarien Cheikh Ahmed Tidiane xalifa ñas euh, euh, di euh, nekk xalifa Léona Niassène ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram Chérif Bounama Aydara xalif Nimzaat Ah, Serigne Muniru Jegéen xalif njabootu Serigne Amadou Jegéen yëpp di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamed Lamine Ngom nekk ca Paal Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass Serigne Youssoufa Mbaye xalif bu maam Cheikh Mbaye Serigne Mansour Cissé xalif bu Pire Serigne maam Abdou Dramé xalif bu Ndand Serigne Abdoulaye Thiaw xalif bu Laayeen yi ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram ak mboolem Laayeen boo xam ne yaa ngi ci réew mi ak ci diaspora bi Serigne nekk ca xalif Jamal Serif Euh, Cerno euh, Madani Tall xalifu Cerno Muntaga Tall famille njabootu Moussa Camara ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram Serigne Abo Mbacke xalifu Serigne Fallou Mbacke suñu bàyyi la yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram waaye Serigne Fallou Mbacke docteur docteur la ci zahir ak ci baatin ak jëwriñ Moustapha Sène yàlla na yàlla defal jàmm Cerno Sama Sa Mourabi ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram Alaaji Cerno Abdourahmane Bari nekk ca Bogal Cerno Hamdou Wan ak euh, raabi euh, wan ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram di nuyu tamit Thierno Bokar Alpha Ba ca war a fondé di Waly Kamin ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram suñu papa la Thierno Bokar Alpha Ba ca war a fondé guddal fan waaye tamit di nuyu Thierno Momadou Adama Gueye ca ñànk idi alaaji Momadou Gueye borom la 5 mai ca Mbour Tefes ñu ngi koy ñaanal jàmm ak alaaji Ousmane Ndiaye Waly Kamin ak soxnaam Ajaratu Mam Boussa Cissé di ziar tamit Serigne Mama Sugu Waadaan nekk ca Kébémer ak Cheikh Adama Niang Baye Awakara ñu ngi koy ñaanal bu gudd ak wér-gu-yaram alaaji Sow góor yàlla sopp sëñ Fallou dëkk ca Passy sëriñ ab Habib Gaye mu wax dama sëñ ca Ndindi ñu ngi leen di ñaanal fan Benjamin Ndiaye ci weer bi nga xam ne mooy weeru carême bi lépp luñ ci woor yàlla na ko Yeesu Christa nangu ak suñu borom daa leen ko nangul ba xel mu sell mi daa day nangu lépp loo xam ne ñaan nañ ko ci carême eh, chrétiens yi mbokk yi Serigne Cheikh Tidiane Diaw ñu ngi koy ziar Serigne Góoru Sëy serviteur de l'islam borom 99 noo yi nga xam ne incha allah moom ci boppam fas yéene na ko fësal ca le 10 mai may ñu egg ceeg jàmm maître Fatima Fall ñu ngi koy remercier marraine équipe Kouthia Show Mansour Sarr Serigne Mansour Sarr chef religieux te bu di ak soxnam Adja Kiné si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum suñu xel dem na ci moom yalla ko yalla xara ci àjjana yu gën a kawe Serigne Babacar Abdou Aziz si ca Ibrahima Kunta ibnu Cheikh Mouhadamal Moustapha Kunta ak soxnam ajaratu soxna Bigué Gueye Serigne Imam Diop xalif bu général bu bu Diop ca Bambay Chérif Atab Aydara ñu ngi koy nuyu waaye imam ratib Cerno Aliou Maska ca euh, Banjul ziar nañ ko ak sama yaay ajaratu Daaro Cissé ak alaaji Ibrahima Mbay xalilulaa wëllëre imam la ak soxnaam ajaratu Fatou Mbay ca Banjul alaaji Ala Mbay bëgg mbaxal nuyu nañ ko di ko ziar tamit Pape Amath Ndiaye ñu naan ko Bilal nekk ca juma sëñ Babacar si rebal taala am ko ca Tiwaawan yal na ko yàlla defal jàmm ak soxnam faatu Wade seen doom al amin ñu ngi koy ziare mbégte ak contentement bu mag nañu am ci sëriñ Cheikh Ami Rijal Seck nekk ca daaru mu euh, ca daaru Xudus euh, maam Thierno Mixdat moom tamit Mbàkke ñu ngi koy ziar nekk ca Daaru Musti yal na ko yàlla defal jàmm waaye tamit di am mbégte contentement ci alaaji Cerno Baaba Nuuru li xalif bu daaray xalif bi alaaji Moustapha Sall euh, di xalif général bu Dimisxe ñu ngi koy nuyu tamit di am mbégte contentement ci imam Moustapha Sall président du forum des intellectuels africains ñii ñëpp yal nañu yàlla defal jàmm may leen fan bu gudd ak wér gu di kilifa diini nekk ci réew mi mbokk yi tey nag dañuy dem seeti Cheikh Omar Anne moom mooy directeur bu kuddu kuddu nag waxuñu kuddu yuy lekkee kuddu moom mooy université bu Cheikh Anta Diop bii am na kurus kurus ak kuddu kurus nag moo nekk Saint-Louis kuddu moo nekk ci Dakar Cheikh Omar Anne Haalpulaar fii Youssou doon jé ca dëkk booy nga xam ne samedi bële bële passé dëkk boobu xam ngeen ko njum moom ci boppam nag mooy lom do njum moom ci boppam ak Farba Ngom Macky Sall da leen woo di leen sargal di leen gërëm ci pale bi ndax liggéey bi nga xam ne mooy massification parti bi nañ ko amale waaye Cheikh Omar Ngom ndekete nit la koo xam ne xol bi dafa set ba pare oyof ñu xool ndax Cheikh Omar Ngom ànd ak moom ak Farba lan la ko jural ndax Cheikh Omar Ngom bëgg bi mu bëgg Macky Sall lan la koy jural ñu seeti ca palais Cheikh Oumar Anne borom université bu Dakar ak université nekk Sénégal yëpp mooy directeur bi chef chef waaw waaw jaaraama jaaraama jaaraama jaaraama e eh, bandiraɓe sehlaɓe jaaraama jaaraama jaaraama jaaraama jaaraama mbaɗɗe jaaraama jaaraama jaaraama jaaraama man de directeur bu kudd je suis vraiment content de Farba parce que président Macky Sall su ma yóbbee mhm. woo ma ma ñëw. Mhm. bi ma wooyee téléphone ne ma Cheikh Oumar àndal far Farba nga ñëw rapidement. Mhm. du ma leen nëbb de suma fit bi defoon na tuf tuf tuf. waaye kii. Farba Ngom bii. moo ma dooleel moo ma jàppale suma nijaay suma lépp suma xarit. président ku mu woo pale. ñaar rek la lay doye. lu la yokk war a lu la wàññi. président bu la wooyee pale. bu la wooyee pale. ñaar la lay dooyee. Mhm. da fal mbaamu folli la. Ah. bi ma woowee nag dafa kontaan. Mhm. loolu yëpp kii moo ko waral. Mhm. bi ma demee Ndioum ñu amul ay nit ñu ne amul ay nit. waay waay waay waay waay waay waay waay tëccu tëccu tëccu tëccu allez tëccu baax na ah, baax na biñ ma awma ay nit ñu ñu ne man damay mbubboo Youssou Ndour ah? pour nit ñi ñëw parce que bu suñu gis Youssou Ndour man loolu takkul ma yóbbu ah. Youssou Ndour taccu taccu eh, man eh, eh. Youssou Ndour soo gisee ma yóbbu ko mm-hmm. parce que Maal foofu yëpp way na fa wayaat fa mm-hmm. wayaat fa wayaat fa mm-hmm. ñëpp kam ko waaye kam nga ne léegi li nga kam ne moom la moo tax nit nit ñi du Youssou Ndour kese man maa leen indil Youssou Ndour mm-hmm. waaye nit ñi bu ñu ñëwul woon mm-hmm. comme tey damay am gàcce mm-hmm. farma bi dafay ma jàppale moo ne ma bu soobee yàlla fépp nit nekk ci biir dëkk bi dinañ ko indi bu soobee yàlla fépp nit nekk ci biir njum dinañu ñëw ndax yow yaa ko liggéey Farou bëgg naa la de. waaw waaw Macky tamit bëgg naa ko de. Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou dëjjo Mamadou Mamadou Mamadou dëjjo dëjjo Mamadou ne pleure pas dëjjo dëjjo ma eggali man nag président daf ma sargal mhm. ndax am na ñoo xam ne président téléphone rek la leen di woo. Mhm. mais man def ma woo pale. waaw ah. mu ne ma booy ñëw na nga ànd ak farb. waaw dë dë dëju dëju dëju comme bii daa ko xamante ko dëju dëju. ay na pëlëri pas dëju. man lan laa ko liggéeyal. lu dul boole ko ay nit rek fexe ba ñëpp daa dee hmm? naka jekk ñun fuuta ñoo ko mus a gàññe wallaay naka jekk ñun njum ñoo yow la wallaay lépp yow la at yow yaay gor hmm. waaye président eh, Macky hmm. eh, ma Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou ko mbiide jaljale ma taccu taccu ne pëleri par taccu ay eh, taccu maa ngi leen di xamal. Mm. tey laay gën a nekk Baye Fallou Baye Fallou président. wallaay wallaay wallaay. waay Mamadou Mamadou. su ma déggee. Mamadou su ma déggee tuuram bi sama xol day sedd. Mm-hmm. far mm. li nga ma defal nii li nga ma jàppale mm-hmm. li nga taxaw mm. ak li liggéey pour parti bi gagné Podor Matam Fouta mm-hmm. ndax président Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou. man tëccu man lan laa liggéeyal Macky man lan laa defal Macky ba mu ma rek ma ci kolam bii. waaye kii kii nii. farba bii ñu ma am ci Macky billaay dartu takaw sama noon yi ma doon yàkkal ak ñi bëggoon man ma am gàcce ñu naan Youssou Ndour moo ko dooleel moo ñëw moo tax nit ñi ñëw waaye kon bi Youssou Ndour pare lu tax nit ñi ñibbiwuñ dañ ca kaw di ma kaar jërëjëf jërëjëf déedéet déedéet bu leen jakkase de man duma bàyyi faalam de kii mooy Baye Fall man Baye Fallu kii laa nekk Baye Fallu doole. Euh. déedéet déedéet waaw waaw waaw loolu rek ndax si moo tag aw ma gàcce. <laughs> moo jàppale man. moo ma jàppale ba biir Fuuta yëpp ñëpp. waay waay Mamadou Mamadou Mamadou tëccu tëccu tëccu tëccu tëccu tëccu tëccu tëccu léegi léegi hmm. étudiants yi bu lu leen neex bëgguñu lu leen nakkari man lu ma mën naa def lu moo mënul naa ko def. su ma gisee foto Macky Sall lu ma mënul sax di la. Mamadou tëccu tëccu tëccu Mamadou tëccu Mamadou tëccu tëccu tëccu tëccu tëccu man man lu ma bëgg tey man lu ma bëgg tey. man sama bureau bii ñu ma yóbbal biir université. Mm. man bu ma sañoon dama ko dugal sax ci palais bi gis suma yeewoo rek gis gis gis gis. waay waay waay Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou tëccu tëccu tëccu ne pleure pas tëccu ah Mamadou tëccu Mamadou. tëccu maa ngi dem de waaye sama xol bi kii. ak président. maama maama joccu ma ne xam ngeen ne jooy ak pecc àndul. wallaay wallaay wallaay billaay wallaay taalaay. duma ko bàyyi mu tëdd. du ma bàyyi ma nelaw de. déedéet déedéet guddi ak bëccëg maa ngi lay kalaat. déedéet yaa tag lii yëpp mu am. te wallaay wallaay wallaay Farba yaay góor. waay ne pleure pas ba tëj Farba yaay góor mais tëccu tëccu. Farba dinaa ko góor yaay góor. waaw billaay tëccu tëccu. ma ma Mamad Mamad Mamad tëccu. Mamad Mamad Mamad Mamad Mamad Mamad Mamad Mamad Mamad Mamad Mamad Mamad Mamad Mamad Ah! danga doon mbaay mbégte ak contentement bu mag ànd ak yéen seen émission Kouthia Show dem nag ci gold sing bi nga xam ne nag si bopp moo ñu ko indil am na nag argan am bi nga xam ne nag mooy escargot waaye nag madaar moo ànd ak ñun ci liquide madaar ci jetol madaar ci euh, madaar cuuraay ak madaar économie sang xar raxas douze ak defar lépp ba set ñoom nañ fi nekkee dañ leen di gërëm di leen sant ndax ñooñu suñu ay mbokk nañ suñu ay wëlër lañ les parrains de l' émission Kouthia Show monsieur Babacar Touré directeur général ñu koy ñaanal fan bu gudd wér yaram liggéey bu rafet nay def di saytu télévision yi maître Fatima Fall huissier de justice ajaratu nen ne Thiam nekk ca Kaolack Sam Cheikh Kanté Amadou Ba Farba Ngom Tata ayda jong euh, Mamadou Mamour Diallo mbay Dieye ñu nuyu tamit bu baax ki nga xam ne nag tey day def anniversaire am di Ramatoulaye Ly bi nga xam ne nag euh, moom nag mooy def anniversaire am tey de la part de Awa Mountaga Ly Serigne Mountaga Ly bi nekk ci régie bi yow Ramatoulaye da lay ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Serigne Aydara sama xarit nekk ci Ouest Foire yal na ko yàlla may jàmm madame Ba Ramatoulaye Danfakha directrice Roi Baudin monsieur Ba mooy sama xarit madame Ba di sama xarit yal na yàlla defal jàmm moom mooy directrice le Roi Baudin fa nekkee ba tey wax dëgg yàlla soxla askan wi la ko tax a jóg ak dimbali maladie Fatou bintu Diop ñu naan ko femme Chéri Mohamed Diop ca États-Unis yal ko yàlla defal jàmm mu Euh, euh, Moussa mbay Mouss mbay ak Seynabou sekk mbay Adja Mar Mbaye euh, ca Gambie samay soppe nañu madame Thiam Sala Fall ma nga ca HLM Grand Yoff ñu ngi koy ñaanal jàmm chéri Momar Thiam Aïcha Ndiaye Paris Koumba Ndiaye États-Unis Soadou Ndiaye ca États-Unis samay xarit nañu waaye nag ñi nga xam ne ñooy soppe euh, Kouthia nekk ca Somone Mami Ñaa Chéri Club ca Somone Binta Puy ca sali nday Ali Sembène kooku raqala ci Maguette Sembène ñu ngi koy nuyu baax Adja Mari Mbàkke yaay euh, ak yaayam di ajaratu Maguette Ngiraan yal ko yàlla may fan bu gudd wér gu yaram Mbaye Xarma mu ngi leen di gërëm di leen sant Ndumbe Seck tamit kontaan nañu les amis de Sadibou Samb ñoom incha allah ña ngi jox rendez-vous le 30 avril ca Grand Théâtre mu Samb ñii nag ñoo ko fa yóbbu muy Muna Seck Ndey Khady Gueye Aram Diop Fatou Diouf Assou Diouf Abibalde Mawali Khady Diop Mami Gueye Thiama Cissé Soxna May Seyni sek Khady Balde Awa Gueye Ami Collé ak Adama Diop ak Ulay Diouf ñii ñëpp ay soppe euh, euh, euh, les amis de Sadbu Samb nekk ca Mbour Ibou Diop nag ca góor ña Bàcc Diop Cheikh Baye Fall Abdou Ndiaye Baye Fall Cheikh Samb Jibi Medoune Fall Bas Omar Diouf Moustapha Gueye bay Mor ñoom Dame Lambaye Mass Boga ak Saneex boo xam ne euh, waaja Mbuur la dëkk mais nag Saneex lañ koy wooyee euh, les amis de euh, Sadibou Samb ki leen koy mooy Ulay Diouf suñu xarit Ndey Mati Gueye ñaan ko madame Fall di soxna Serigne Lamp Fall ca rond-point marché Samb boutique xalifa borom ndamba yi neexee fiiri suppu yeel cere baase xaritu chauffeur tata yeeg njaga njaaye taximaan yi clando yi ñu ngi koy ñaana fan bu gudd ak wér gu yaram ak xaritam mami Ndiaye nekk en face terrain basket marché Sam yaayu Sophie Garmi ak Laay nekk ca Touba Couture euh, ngi koy nuy bu baax di am coloré bu mag ci ñoom léegi nag tonton Mat moo nekk ci réalisation bi ñu ngi koy gërëm di ko sant ak tog caméra yi xam ngeen ne Aba moo toog waaye Ablaye <laughs> ñu ngi koy nuyu Ablaye Ablaye Dra Draveur ñu ngi koy nuyu Ablaye Draveur <laughs> ñu ngi koy nuyu bu ñu Ablaye Draveur ñu ngi koy nuyu rek Ablaye Draveur ñu ngi koy nuyu mbokk yi Macky Sall dafa ut koo xam ne moo koy defal communication te buñ ne communicateur traditionnel mooy géwal yi nga xam ne buur bu mosaan def lu baax ñoo koy siwal buur bu mu mosaan tukki ñoo koy yëgle buur bu bëggee joxe xibaar moom la ñu woo rëng rëng rëng rëng déggu leen jàmm la soo leen ko dégg xam nga ne bi ba euh, buur mu ngi biral benn xibaar léegi nag àdduna lu moo dox ba ñu moderniser ko chargé de communication Macky salla ci campagne am bii ab tubaab la jël dénk ko communication ndax nit ñu ñuul dañ koo doyatul war tubaab bi moo gën a xam nit ñu ñuuli kuy Macky Sall moom nag ñu naan ko Kouchner mooy ñëw jàkkaarloog militant APR yi Kouchner mooy géwlu Macky Sall bu bees bi ñu seeti ko je sais pas pourquoi ces bruits. Je suis pas venu ici pour folklore quand même. Je suis venu juste pour présenter mon programme. Parce que je suis euh, contacté par euh, monsieur Macky Sall qui m'a demandé de venir travailler avec lui. Et j'ai trouvé que travailler avec le président Macky Sall, c'est parce que je maîtrise la situation du Sénégal. Ouais Euh, s'il vous plaît, j'aime pas trop de bruit parce que euh, c'est pas la de faire trop de bruit. il suffit de travailler pour avoir le résultat. Je suis le nom, s'il vous plaît, un respect à mes paroles quand même. Euh, si je suis venu au Sénégal, c'est parce que je maîtrise l'Afrique. Je connais l'Afrique, pour me faire son chargé de communication pour les élections présidentielle. Je suis venu à la rencontre des militants à pair. Pourquoi? Parce que je veux pas que vous pensiez que je suis là pour seulement de l'argent. Non, non, non, pas du tout. Parce que je connais Macky. Je connais le Sénégal aussi et je suis nommé en tant que conseiller en communication pour régler le problème de communication de Macky Si vous avez des questions à demander en wolof, euh, en français, je suis prêt à vous répondre, donc n'importe quelle question. Okay. Si je comprends wolof, oui. bés ki géwél la géwélu Macky Sall la géwélu Macky Sall la parce que euh, communicateur traditionnel mooy ñi yëgle xibaar ak jottali nit ki ay jaar-jaaram bu leen jommi bu leen waaxu parce que pour nga liggéey ak Macky Sall foofu nga dégg wolof xanaa a ron jëw ah, kon question yi. oui. Eh, eh, ñun bu bu bu fekkee ngir yoo fii ci Sénégal ñun ñoo xam taarixu Lat Joor ñun ñoo xam Bokkunta ba ñun ñëpp ñoo lañ jàng yow nag mënoo jóge ca France ñëw taxaw fii di dina woon ay communication bu ne communication ñun fii jiw li dañ koo naan dañ koo naan dañ koo naan ba mu jeex tàkk. yàqalu ma leen dara ku nekk ak sa yoon la oui quand même non leen meex man yàqalu ma leen dara. xam nga loolu jaaxal. da ngaa wax ci Macky Sall te ñun ñun taarix bi ñu jàng ci Macky Sall ju avant indépendance après l'indépendance ba fii mu toog mu toog ci président bi yow lan nga ñu ci mën a wax lu ñu jaaxal. loo xam ne jaaxal hmm. mais liggéeyu ndey añub doom sama yaay def ko liggéey marina sama bay poli da ko liggéey kon ku nekk na nga lijjanti li la fi indi man jotuma ak géwal yi benn problème. man géwal moderne la damay liggéey ci communication. waa léegi sëñ bi nga baal ma tuuti waxal ak AB moo lay tontu Seydou Samaro. ñëw waa léegi nagam yow yaay géwalu Macky Sall. dañoo bëgg nga wax ñu. Macky Sall ay maamam fan lañ soqee ko loolu lañ bëgg a xam. Macky Sall ngi dëkk dëkk bu naan ngi ji loñ jàngee jum jaar dëkk bu naan porté. am na war a amoon. am Sall ngi màggee diggante ngi ji loñ ak dëkk bu naan euh, baw bi. Macky Sall mu ngi juddoo di ngi dëkk bu ñuy wax Fatick. laay laay li la ñu si yàlla Macky Gassama. dëgg la ah. wax de. li ngeen jaar fi Macky Sall ku fa jaar takk bal parce que dafa galéré balaa muy takk bal. loolu doy la. acca kon monsieur Kousne ba tey euh, dañ lay laaj li nga xamante ne moom mooy question en pulaar ndax jamono jii ni ñëpp ah, xam nañ ne Sall tukulóor la. tukulóor danaa koy laaj tey. beneen beneen ko ma déglu. minen mi namdotoma ko gila hmm. makky sall woni président to batte fouta holko fewni toon holko hmm. waɗi toon ko waɗiri toon émergence holko ngannduɗa heen degli eh, eh, eh, s'il vous plaît yekkati sabati kawlo waxde mbimi mi namdete gila makky sall woni président to fouta émergence makko holto yaari holon bange émergence makko yaari tade ko an woni communicateur makko an woni gawla makko an woni fof makko min namdete jooɗi an holko ngannduɗa e holko danga ma laaj ci Haalpulaar ne ma ndax Macky Sall mm-hmm. li mu liggéey ci Sénégal mën na ko fal am déet. laay lii la yoo xam ne li ma ko wax loolu <laughs> dama ko leeral ñi déggul Haalpulaar dama la koy tontu ci Haalpulaar mbadde umu ko kaadi ne mu ngati ah. jama wonka la yuɓota wonka la ñamlo émergence yiide mbaadi kon on jukkalenkin jommi gu leen sax da ngeen di waaj a jommi keneen kuy laajat la ilaha illallah useku na mexe sim nang mexe sim nang alam tang hmm. Macky a ah, i mbalangaan deuxième partie xëj a xanaa euh, motaleen euh, sànce ke mu may laaj ne ma xam nga lan la muy laaj mu ne ndax Macky Sall li mu liggéey ci chantier yi mun na ko may deux deuxième mandat loolu la war a du loolu loolu la ko laaj loolu la léegi la koy tontu ci séeréer o fogole ndip na tang nan fagani ko sip naa na ndaki ko fog e ne fagal mi mi mi xanaa xem nga <laughs> wala may ñëw may ñëw euh, dafa amul ay joola mais bu amoon joola sax ma tontu leen ci joola kasu may mooy yaa ngi nuyoo kasu may képp mooy fay nga nuyoo bi koto boolo dolli nga fayante bi koto su ko nana ñooñu kota kap yaa ngi jamante bu dee njaago la yaa ngi wax olef bu yees bu ñonkoton bi ca kàccu ngono ko cokke kon man sama liggéey xam naa ko xam naa ko sama liggéey xam naa ko maa ngi woo sama papa Alaaji Mansour Mbaye waaw mu daal di may dalal ci géwalu yi nga xam ne ñooy communicateur yi waaye pour ma wax leen man may kan ngeen xam man may kan ma nekk tubaab ngeen gis ma yaakaar ni man aw ma cosaan sama jabar moo leen di bett moom yor sama cumukaay mu ngi ñëw. ajaratu ah. yow kii jabaram olof la. balaa may ñëw nañ ma yeb ba pare. nee nañ ma yaa ngi dem dëkk bu bari cat ak làmmiñ. ñu ne ma yaa ngi dem dëkk boo xam ne. boo waxee kenn ne ko bu ko kenn yëg ñëpp xëy yëg ko. yaa ngi dem dëkk boo xam ne duñu mun a sosal doomu aadama. gis nga bii boo jibee mbooloo ñuy wax ci yow sa fit bi naan tép tép danga koy seexe juróom-ñaari petaaw la woon nga wane ginnaaw daal di leen wangeetu bii nag da koy sex xooj ko ba mu yàbbi nga galax ndiku ndiku ndiku ndiku daal tuflit ne la Paris. la Paris. la Soki. la Soki la Semon. Eau de Montréal. kii sama maam bu ñaan Gilbert Oudé cordonnier moo ko ñëw. mu ngi ko ñëwee ci yoon yi nga xam ne moom mooy 16e à Paris. ci côté charcuterie boulangerie Laber. Ah. xanaa xem ngeen. teel bii nag. Ah. sama jabar mu ma ko ëwloo fii nga xam ne moom mooy dëkk bi tudd. mbaxadun xam ngeen mbaxadun boo rombee Kaffrine tuuti mel na kuy dem kawoon ah. mbadaxun wala mbadaxun bii oh. benn saltige buñ naan korom ak fay moom a ko jox kii ah. ñetti guro yu weex lay àndal ah. loo wax nit ñi bëgg ko mu neex mu naqari xanaa yàlla teg ci laminam lii yëpp nag boo ko xoojee ba mu yàbbi moo musal ci bët. lii ngay xooj gàlla gi musal ci bët guddi. moo musal ci lamin bu gudd. moo musal ci ay wax yoo xam ne ay pàccal foroxal rek ak lu lay waaye moo musal ci xol bu tàng di bon te kenn mënu ko faj. xanaa léegi xanaa léegi xanaa léegi xam ngeen. ñu ma xamal leen ni ngeen amee ay saltige olof ak séeréer noonu la tubaab yi amee ay saltige tubaab ah. boo demee dëkk buñ naan ko ndox moo ko wër nga dem Marseille diggante raay bi ak ndox mi am na la Seine ndox moomu boo ci sangoo juróom ñaari yoon ah. dem bi nga fi nga xam ne moom mooy Champs-Élysées nga ut ci ci layu bi bu layu ba faja ah. nga xoostali bi ndoxu lay bi ah. soo ko seulement juróom ñaari yoon foo posé candidature mairie da koy gagné est-ce que xam ngeen ne tuflitu tubaab suba teel boo ko defee sa bët doo wànnent est-ce que xam nga ni tubaab bu dem ba am fanweeri at ak juróom-ñaar <laughs> bu la joxee tuweem tubayem nga xooj ko weer ko loo jur day xees soxlul ngay xees kii nag maa ko xami Paris su ma neexoon takk Marguerite war a ma takk Bernardine waaye dama ko takk parce que xam naa ne li mu bëgg laa mën mooy sama cappali bonbon mooy sama kanik xeeñ Macky Sall tànnu ma parce que dama jàng communication dama nekk tubaab bu jonge tubaab bu xam mbaxal soos xam domoda ne day am ñaari bulit xam Tuuba Tiwaawan Njaasaan xam kër yu baax ii ma ni laaj ma Balla Gaye Eumeu Sène yox seen cumukaay ci suuf dama ne bés bu combat amee paxe ngeen xam ne sëriñu tubaab am naa wuyu ma ku nekk sa Aïda Souka kii mooy suma Aïda Souka maa bu mag uh, di gërëm tamit uh, delloo njukkal yaay booy ki ko way nag uh, mu delloo njukkal jigéen waaye di delloo njukkal yaay booy dinañ ci a ñëw bu gën a yaatu di ko nuyu de passage di ko ñaan carrière bu am solo groupe marketing Tigo ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant ñoom Jacques Tigo ñoom Euh, DJ euh, Joyce ah DJ Joyce ak euh, DJ Joyce de Tigo ñu ngi koy nuyu Lamine Diallo nekk foofu ca Tigo ñu ngi koy nuyu Pape Salif bu Tigo ak Pape Diouf nekk ca Tigo ñoom Pape Omar Tigo ak Lamine Thiam Tigo ñoom Assane Fall Tigo ak Cheikh Fall nekk ca Tigo Alaaji non asafurlah Abdoulaye Ndiaye nekk ci Tigo Salif nekk ci Tigo ak Diar ak Diar nekk ca Tigo ak euh, Tigo mbuur fa la nekk ñoom Yves nekk ci Tigo Mbour de la part de Thiamas kii nag mooy équipe de marketing bi nga xam ne ñoo waroon Sénégal ge def promotion li nga xam ne moom mooy Tigo ñu leen ñaanal nag euh, yendu jàmm ndax ñoom fu ñu toll daan nañ mos a seetaan émission bi pour xool fan la ñu toll ci liggéey bi ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp nag ñooñu nga xam ne ñoom ñooy équipe bu Tigo promotion marketing di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne nag euh, mooy njabootu Serigne Ibra Dior Amar xalif de Serigne Aliou Amar journée culturelle de Serigne Aliou Amar premier xalif général euh, bu Darmanko yi mu ngi am nag euh, fële ci nga xam ne nag moom mooy le 17 mars ca centre culturel Blaise Senghor à Dakar zone A gàmmu annuel à l'hommage de Cheikh na Cheikh Dahi Aydara samedi le 10 mars 2018 ca Wakaam cité avion quatrième euh, édition bi moo nekk noonu waaye ziara alaaji euh, Moustapha Sarr ca gin ginaaw ci ndigalu xalif euh, alaaji Mouhamadou Kabir Sarr et tous les membres de la famille Sarr les ñi nga xam ne mooy Serigne Cheikh Tidiane Sarr ak sama xarit imam Sarr Lamine saar nekk ci HM4 yal na ko yàlla may jàmm Serigne Omar Sarr nekk ca Cambérène ak Serigne Imam euh, Babacar Sarr nekk ca Guinguinéo Serigne euh, Sabaxaw saar nekk ca Guinguinéo ak euh, Imam Adama Sarr Thiès ak Alaaji Aliou Badara Sarr ca Guinguinéo tous les membres bu daayira mouvement wu Hali Hali Euh, ak daayiratul Ansar ñoom ñëpp nag ñoo ñu yëgal le 7 avril ziara bu mag bi nga xam ne mooy ziara alaaji Moustapha Sarr foofu ca euh, gin gineew xadra juma dina am a àjjuma ji samedi mu am consultation gratuite par docteur Mbacke Sarr 16h ba 17h euh, mu 10h 14h mu am lecture de Coran ñu dem ci xéwlu gi gàmmu yi ak way yi nag commencé ci guddi gi Cheikh Tidiane Sarr mooy doon conférencier bi hommage à alaaji Ibrahima Sarr fils de El Hadji Moustapha Sarr sama papa nag mooy def mooy def gàmmu di ziare annuel ziara annuel bu Ngaparou samedi la 10 bii na 2018 bi organisé à la mémoire de Alhaji Iliman Sakho et de son fils Cheikhna Cheikh al Islam Alhaji Ibou Sakho Alhaji Tafsir Sakho Iliman nag mooy wo jullit yëpp le 10 incha allah ci teewaayu xaritam wëllëreem euh, la xalif général de Tidiane Serigne Mbaye Sy a ajjuma daay am xadara juma samedi bi nag ziara bi képp ku nekk ci diggante Yoff jàmmalaay ak euh, euh, Bargny ak Tëngéej ak fépp euh, taraxa tijaan nekk rek ñu ngi leen di woo murit ak laayeen ak képp koy julli rek woo nañu ci bés boobu ndax bés bu am solo la ziarale woon a ñasen nag moom la neuf la ak la dix suñu baay di Serigne Cheikh Tidiane Niass yal na ko fi yàlla yàggal mu yàgg fi ànd ak wér di xalif général Léona Niassène yal na yàlla guddal fanam ak porte parole ba Alaaji Mouhamed Alaaji Mouhamed Babacar Niass ñu ngi koy gërëm di ko sant ajjuma xadara juma lay doon samedi bi mooy doon ziara maam xalifa Niass ñu ci euh, ndokkale suñu papa suñu xarit Sidi Lamine Niass directeur général bu Walfadjri yàlla dëgëral taxawaayam tamit yokk ko tamit bu mu gën jëm ca kaw sixième édition journée 99 noms de Dieu yi samedi le 10 lay am Serigne Goro Seye at bu nekk da koy def ren nag am na ay coppiku waa Algérie Mauritanie dañuy ñëw te bës waaw dañuy ñëw bës bu am solo la ay yàpp yu ñooy ñoo fay nekk nag yu neex nag ay añoo rek lay rey bésam bii bésam bii day day neex màggal maam Seydou bu Ndiaye nag le 10 mars ci Touba janatul Mahwa ca Ndar Fall ñoom tamit sëñ Cheikh Binta Fall actuellement conteneur yàpp la génne waaw am na ñoo xam ne màggal yeeg gàmmu yeeg ziar yi ndaw la ngeen fa yóbbu bu dee ndaw la fa yóbbu nag bu yow nga dem te xam ne di nga lekk ndawal Serigne Modou Mactar Mbacke na moom nag yaa ngay daanu kookoy euh, fils cadet de Serigne Mor ma jigéen Mbacke à Mbour quartier Liberté la onze la ak le 10 bés bi nga xam ne mooy le 11 sëñ Fallou Mbacke docteur nañ ko parrainé yónnee na ñeenti nag en attendant pour ngir gaay yi mën a xewlu sëriñ maam Cerno Mixdaat Mbàkke ca Daaru Muxti nee nañ fu ñu toog nañ wax amin moo wax ne nee na ma Kouthia fu la foo toog neel amin chaque instant boo gëstoo sax neel amin parce que sama course du jóg ci yow ñu ngi koy nuyu madame Sali Soumaré kooku nag dañoo taxawal fan sa club Kouthia bu mag sa Caaroy Gaar tey bii wax ñu wax ak yéen ña ngay fête mars bi Babacar Sène maire de commune Caaroy Gaar ñoom Xima euh, Ndiaye ñoom Mariane Diané ñoom Awa Ah, awa aaw Abdoulaye Der Déthié Fall ñoom ñëpp daal ñu ngi leen woo ci bés boobu bés bu am solo la sëñ Amsa Mbàkke nag bu Pikine tali bu mag le 6 ak le 7 avril mooy euh, mooy mooy mooy cant borom daaru cant annuel yi am foofu waaw waaw mais nag gars yi lu waxtaan bi neex neex neex lundi le 12 mars anniversaire Kouthia dañuy inauguré plateau bi eh plateau bi eh eh pour yéen li plateau bi la lii du plateau bi de laa la plateau bi li ci manqué dafa bëri xanaa seet non non non non non altine ci kattanu yàlla dañuy dañuy dañuy defaraat plateau bi beneen plateau la dañ koy defaraat te euh, euh, euh, anniversaire bi day tombé ak inauguration plateau bi mais mais madame Ndour Aïda Coulibaly woo na ma démb ne ma <laughs> ne ma incha allah même bu teewul ku seetaan télé bi dina xam ne teew na waaw moom wax na ko moom. Euh, deuxièmement maître Fatima Fall mooy suñu marraine moom xolol joyeux anniversaire lañ soxla ci moom dé moom rek loolu lañ ci moom kese parrain ba nag di Babacar Touré moom joyeux anniversaire lañ soxla ci moom moom loolu lañ soxla ci moom ñoom ñëpp nañ ñuy woote joyeux anniversaire xam nga kan laa ko présider benn président bu ma neex xaw ma ko nag waaw may maa maa ngi yónnee nuyoo ci moom président bi mooy Alassane Ouattara président bu Côte d'Ivoire man mooy man man man mooy sama xarit man man moom moom moom laa féetewoo waaw man man président Côte d'Ivoire sama xarit la dafay seetaan Kouthia Show mooy président boo xam ne nee na ma Kouthia si si si si y avait le ceebu waalo à Côte d'Ivoire jusqu'à présent tu es devenu multimillionnaire je vais te donner de l'argent je vais te donner mais malheureusement tu n'es pas ivoirien mais ça va venir moom nag mooy sama xarit moom laa féetoo président bu Côte d'Ivoire Alassane Ouattara rek looy taxul de benn yoon nga koy woo mu dégg la looy lay la laa looy Alassane Ouattara mooy sama xarit léegi nag Youssou Ndour dama bëgg a génne sa loxo ci xew bi ah. Aïda Coulibaly moom nañu invité mooy marraine bi yow moom grand toogal rek quoi grand yow moom grand baax na jërëjëf loo def merci yàlla yàlla defal jàmm Aïda Coulibaly mooy marraine bi ah, maître Fatima Fall mooy marraine équipe bu Kouthia Show marraine bés bi nag bokkul ak marraine équipe bi maître Fatima Fall moom mooy marraine Kouthia Show mais Aïda Coulibaly mooy marraine bés bi mais Aïda maa ngi romb dama romb rek dama romb rek gis ay xool dama ko dégg de booru këram noonu sama benn copain moo dëkk ci ginnaaw ma dégg Aïda naan seize seize moutons trente cinq seize cinq eh, eh, poulets eh, euh, deux tonnes de boisson jus une voiture 4x4 non une voiture 4x4 après mu ne nii maison meublée non ay da boo baax gis nga lii ma dégg nii nga koy wax ni benn boo ci def rek di am problème benn bu mu ci def xolal non ba mu def ci benn rek maa ngi xaar rek yow ay da billahi wallahi taala dama lay porte plainte billahi wallahi taala dama koy porte plainte laa koy booleel yaa baax Aïda yaa gore yéen eh, eh eh ku leen tàgguloo Aïda ku rek ay seytaane ngeen rek di ngeen ma yàqal ma catuma léegi nag mbokk yi dañuy dem seeti Marème fay xam nga Marème fay lu koy wax ñu koy seeti parce que tey 8 mars la jigéen ñi nag tey ñoom ñooy buur tey jigéen ñi ñooy buur ñooy def lépp lu jigéen sant góor na ko def parce que ñoom ñoo moom bés de te lii nag ñuy def nii bu ko nit ñi xalaatee neneen nañ ko xalaatee kaf foore te jàppee ko ne bés bee ko laaj Farba Ngom ma nga ndax président Macky Sall actuellement Sénégal xam nga kan moo ko jiite kan mooy présidente bi Marème Faye mooy présidente bi tey lépp bu dara sodd Marème yaa mu basi toogal toogal kay kay madame. Mhm. que tey ñu ko sukkandiku. farbo da nga ma rey rek. muy moom. lu la neex na nga ko def. waaw. diggante bi nga xam ne mooy sept heures du matin ba minuit. minuit yaay président de la république du mhm. Sénégal. Mhm. parce que ce que femme veut Dieu la yàlla moo ne lu jigéen bëgg dama ci ànd. parce que jigéen ci boppam. yàlla da ko taral kon tey nga ñam tuuti rek 24 heures rek ma ne te wax nag loo xam ne loo bëgg lan lay defal loo bëgg tey maram moom lañ lay defal mm-hmm. lu dul loo xam ne yàlla da ko sib mm-hmm. loo xam ne diine bëgg ko mm-hmm. waaye loo bëgg rek tey moo tax ma woo sama gël sama xarit sama député farba pour mu tey journaliste ñëwul animateur ñëwul kenn ñëwul say ministre nag ñu ngi teew pour mën a fekk fet bi ak ñoom ay dëgg la tey li ma bëggoon mooy ngeen taxaw réew di tàccu lu ma bëgg oh. lu ma bëgg ngeen bëgg ko lu ma bañ ngeen bañ ko mais loolu la sama militant yii nii laa bëgg tey ñu bëgg parce que dañoo sonn liggéey bi waaw liggéey bi dafa metti di liggéey chaque jour chaque jour kon tey dañoo war a bëggee tey pale bi daa war a wàcc. waaw moo dama bëgg moo dama bëgg par kenn kenn ñu fekk ma fii ñëw Baara Mbaye ba mu saf. ñu doog a def leneen. yow ñii yaa leen jiite. man maa nekkoon seen patron. Farba ngi nii taxaw. bu ñu bëggee sax ñun ñu tëgal leen ko. ndax tey kenn amul problème kan ministre yi kenn par kenn seen hmm. présidente ngi nii man garde corps la ak garde corps farba tamit dafa taxaw mais bu kenn nettali bu kenn photo li ma bëgg may farba farba na dem jëli sabar yi tëggal xale yu jigéen farba dama ko jël cool bi aco gawal gawal gawal gawal kii li mu bëgg loolu la ñuy def maram maram nag ak sutura hmm. taxul man nga wax loo xam ne day d'abord dama la xam dëgg la gardal sa calme rek te garde sa notoriété gis nga président nu mu neexee yaa ngi wëndalu nu mu neexee wëndalul waaye mu ne baajal <laughs> maram doone tagal tagal waaw lii ayca ministre de la femme ayca ministre de la femme nañ ko Baara Mbaye rek Baara Mbaye ministre de la femme ayca ay eh, jox ma beneen sabar bi ayca demal waaw waaw demal waaw tagal tagal Vamos ver no galão. ayca demal demal rapidement wax sa solo. président léebal mi ni lay jeex. mu ne président. léebal ma. waaw léebal. eh tey ñun ñoo ay léebal ko. forme mënoo lépp ngay def tey. mënoo lépp. léebal non léebal ko. léebal ko président. léebal. léppoon amoon na fi. dëkk boo xam ne. Hmm. góor a ko jiite woon. Hmm. góor ga taxaw mm-hmm. na soxna si teel ma place bi maa ngi dem te ñëw mm-hmm. soxna si teel place bi di baaja mbalay mm-hmm. di def lu ko neex te loolu warul nekk lu ko neex fa la lépp jàppee tàbbi géej ci <laughs> yoro yaa ma mën a lebloo nag yoro yaa ma mën a lebloo loo xaaral rek ba journée bi passé maa ngi war a place journée bi léegi mu jeex yàggatul ministre de l'entrepreneuriat cin gi tàcc. kontaan nañu dugg dugg waagaam xaañi waagaam. merci merci kontaan nañ ci yow trop. merci di la wax ne. macha allah maa ngi liggéey sama liggéey nice. Mhm. kontaan naa ci yow trop. dëgg la waaye nag xam nga lu ma bëgg. Mhm. <laughs> président laa bëgg mu plalinal ma. mu plalinal ma loolu rek laa bëgg. président ñoo ko déggandoo. Hmm. nee na nga plalinal ko. waaw mën nga plalinal. plalinal man fàtte maa ko dégg. kenn du la dàq. bis bi lañ dàq farba dama rek plalinal. kenn du la dàq dama dama karaw dafa jàppale ma. président. balaa léegi. yow ma trois mille benn la. balaa oh. léegi te ñoo aye de. balaa léegi li mu ah. ne. te ñoo aye. waaw. waaw. te booy fokk. ngara la. ngara la ngara la. albatikul albatikul. acca demal. ñëwaatal. ñaari nag ñaari kër ñaari kër ngara la ngara la albatikul. baax na doy na la kontaan naa ci moom. kon merci waay ak sa dama waay. Ah, jërëjëf waay. ok ah, merci xaaral ba affaire yi paase la di nga xam. ku ci tegu ci tegu na ñëw. ah ah ak sa dama waaw. ça va. maa ngi ci jàmm bu baax. tey lu leen neex laaj leen parce que tey ñun ñoo ayee. kan moo la koy bootal. non loolu dara waxal ci kaw. waxal ci waaw. bootal ko doom ji ah, kenn du la dàq. bootal ko doom ji président. forme ñun ñoo ayee. président yow laa waxal de. teg ko moom ngay boot loo. boo ko xale. ayoon nan na ayoon nan na nan na tuuti ayoon nan na ayoon nan na ayoon nan na nan na tuuti ayoon nan. waaw ayoon nan na nan na na tuuti ayoon nan na. ayoon nan na roganti nan na na tuuti ayoon nan na. ayoon nan na nan na tuuti ayoon nan na nan na ayoon nan na nan na tuuti ayoon nan na nan na tuuti. tuuti Saloum Saloum Saloum Saloum buur la buur ñetti nag la ayoon nan na nan tuuti. sabab sabab sabab sabab tey kenn du leen dàq lu leen waaye lu leen xoolal lu leen ñeex def leen. ah dëgg loo acca ku ci tegu. kaay kaay bis bi ñee ko moom. Faye. ñu ngi lay a wér. maa yàlla bi nag Penda Wagan. Mm-hmm. ba nga nekkee ci mm-hmm. mm-hmm. wax la rek ne dëkk bi yëpp ñu ngi lay la ñëpp liggéey bu rafet ak ah, li ma a wax est-ce que mën ko wax. yow lu la neex waxal. tey bis bi ñu ñooy borom. la mu jax. ah amul benn problème waxal lu la neex. non non kenn du la dàq. kenn du la dàq. bien sûr. mën na ma feccal pourquoi pas. mën naa cee daaju. bu baax. président. acca feccal. forme kaay feelu kaay feelu yow laa waxal de. kaay feelu ma rek kaay feelu ma. kaay feelu ma rek. Eh. kii laa wax pour mu nekk dafa mel ne dama dox ma ko dama ko acca. anda dolli. anda ku dolli. anda dolli. anda ku dolli. anda dolli. అందుకు తల్లి అమ్మా తల్లి అందుకు తల్లి అమ్మా తల్లి అందుకు తల్లి అమ్మా తల్లి Vamos passar! Vai, Mo Da nga sonn

ba nga nekk ci doom ba léegi ñëpp a kontaan ci yow. tey li ma bëgg mooy nga wax ma monsieur le président mii. mu jàngal ma sama sang ba Serigne Mama Sougou. Sougou faral naa ba teral. ma bëggal ma te dafa maa gënoon sama benn jàngkat ma xam ni kii. war a mën a jàngal. président jàngal ko. jàngal ko président jërëjëf sëñ bi nu sëriñ Mama Sougou nar ba ca waa daan. waa waa daan. jërëjëfi waa waa daal jërëjëfi sëriñ mama sugu jërëjëfi waa waa daal jërëjëfi sëriñ mama sugu jërëjëfi waa waa daal jërëjëfi sëriñ mama sugu waaye jërëjëfi waa waa daal jërëjëfi sëriñ mama sugu jërëjëfi si waa daal jërëjëfi sëriñ mama sugu xanaa ku la way yaay daal sëriñ mama sugu yaay daal sëriñ mama sugu xanaa ok merci beaucoup. jërëjëf nii la bis bi ngeen am bëgg rek. napa leen wàcc lu waay neex def. ñu ni kenn du la daal waaw kenn du la daal. ay waay. déedéet merci beaucoup. Mhm. nuyu la. maa lay fay ziar la. Mhm. ndokkeel la ci bis bi. ndeysaan ah mhm. jigéen ñi. ma xam ah, waxal ci kaw ñu déglu loolu. man li ma kenn loo bëgg kenn du la dàq. loolu neex waxal. mooy lan. kenn du la dàq. def ko mu noonu dëgg tama. waaw eh, saa yu ma gisee président rek. sama xel bi ci loolu lay dem comme que bisu ñoo ko moom nag may daali sama tama. waaw mu tëggal ma ko. kese. mën nga taxaw amoon na raw léegi mu ngi jóg. waaw ñun la xanaa moom mu jóg mu ngi mooy kat mu ngi mooy kat gaaw mën nga tamaloo. man xal pulaar laa xaw ma tama de. mën nga tamal. fa lañ koy bokkal. <laughs> <laughs> jógal ma tëggal la ko kon comme que yaa ko commandé jógal ma tëggal la ko eh jógal ma tëggal la ko fii lay joxe parce que temps bi jot na il est minuit moins quart jàppal tool mbat ma xool man ngay tëggaloo tama yow waxoon ndax suba dañoo liggéey temps dafa jeex non dama man lay tëggaloo tama suba dina jot ah ah